oto Papa Sow oto Papa Sow Papa Sow mu ngi ci biir eh, ay pigeon ñaari pigeon un de trois quatre cinq sept pigeon sept bi daa lu muy teg xanaa sept pourquoi sept chiffre sept bi tey lu tax juróom-ñaar tey. sëñ Fallou rek sëñ Fallou rek. waaw lu tax juróom-ñaari pigeon yi. waaw ah, sëñ Fallou rek yàlla seen bër tey. ndam rek ndam rek. waaw. ah ndeysaan. lamba metti. lamba metti ça c'est wala du moom mais kii de ancienne gloire la wala nu noonu mais comme ancienne gloire nga léegi wala da nga wala adversaire yi ñëwul. adversaire yi ñëwul ah, kon bàyyi nga si maa ngi yaa ngi ci jàmm. oui naa la lu bare. waaw doon ci tey papa. waaw pression. sans stress. no eh, sama gars ngoog ça c' est Francky. la copain. Francky un mot pour Iba TV. waaw. is back. noo andee tey sa sa sa copain. Ah, moral bi. ndam rek ndam rek. ah sama waay nangu stratégie bi. waaw ndam rek. ndam rek. kon gaa yi ngoog. ñu dem ñu dem. kon gaa yi ngoog. papa nuyu naa la. papa lo añee tey. ah. Eh. comme dab comme eh. dab. comme dab. loo añee. comme dab. ah. comme la barki ngeen doon plat de. ñaan yàlla yàlla ma ñu dab rek. rek waaw. waa Ngop jaaram kee Ngop. waa